des Baye Fall xibaar bi nag ñu ngi ko jot sànq daan ci dellu soir mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaayu xibaar yi dañ koy tàmbaleeg naqar ak tiis wii dal ci kaw euh, ñi nga xamante ni ñëw di murid di fatuk euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall di xalif général des Baye Fall xibaar bi nag ñu ngi ko jot sànq daan ci dellu soir mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaayu xibaar yi asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii